léegi nag la ma wax ak Ousmane Sonko moom ngeen bëgg a xam est am na ku fi mokkal suuratu najm ki kii moom mokkal na ko xam nga bi yàlla bi yàlla di wax ak yonent bi daf ni wa awha ila abdihi ما أوحى وأوحى إلى عبده ما أوحى موي et il révéla à son serviteur dañ kumpa yi ne tawee seen nopp di déglu mu ne la ma ko wax wa awha ila abdihi ma awha il révéla à son serviteur ce qu'il révéla mooy seen yoon newu la ma waxanteeg moom seen yoon newu ci wante daal la ca juddoo ci yiw pour Sénégal ak yéen ñii ba ngeen xëy 3 avril marche amul ñu défilé défilé bu neex président de la république invité opposition bi ñu gàntal ndax seen mbokk yi nekkoon ci kaso bi li jur loola ca fajar googa la judd salaamun hiya hatta matla'il Vous savez, aux États-Unis, aux États-Unis, le président de la République des États-Unis, à chaque fois qu'il est amené à prendre une décision, la dernière phrase qu'il prononce avant de prendre la décision, moi, It is in our vital national interest to do this. loolu bu ko américain waxee bu doon dalaa war a dóor nucléaire boo yeboo pare moom la lay dóor pare na ça veut dire que la réflexion est parachevée ils ont déterminé de façon extrêmement précise leur intérêt vital national et ils agissent en conséquence it is in our vital national interest to do this. By in our Senegalese vital national interest to have Idrissa Seck on his bike ride to Mr. Ousmane Sonko's house before dawn.